wax woo yewoo delloo si sa xel ubbi sa bët war ngaa rëcc lool la raw ndax duutuñu ko dabaat li ci kanam nga fus ko yéenee baaxal fas ci yéenee am sa texe tey ak ëllëg kon mooy li gën a am solo suñu borom bu mu tëñee ci jamono ngir di xamal doomu aadama ne jamono lu ama am solo la kenn waru cee neenal benn benn seconde lu mu jëm ci jamono ne doomu aadama ngi ci perte ndax jamono ji mu wax day delloo si xelu nit ci jamono ni mu amee solo ni ma waxee ne benn yoon rek la ko nit di am te bu jeexee jeex na mu set ci ñi ci nekk ci perte gi gaa ñi nga xam ne gëm nañu génn na leen ci ngëm gëm naa rek du ngëm diw nangu na ne yàlla am na nangu na ne moo yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax ne baa ci ko bëggee jàng ba wattu alquran tolluwul sax noonu tàmbali la bu sew boo xam ne benn tàmbali gënu koo suufe ñi ko gën a suufe kenn konteetu ko muy tàmbali du dara ki gëm ne yàlla am na boo yónni Muhammad sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu wax dëgg la gëm nangu ko kon iman lu ama am solo la daanu ko waxtaani ci biir mu teg ci wa amilu saalihaati ngëm rek boo fa yemee doyut ndax suñu borom dafa santaane ñi gëm dafa ne ñeen ñi gëm def leen nangam def leen nangam bàyyi leen nangam kon wa amilu saalihaati jëf ju baax ci la bokk daan ko waxtaane yemul ci jëf ju baax daf koo leeral yokk leeral mu ne watawaasaw bil xaq watawaasaw bis sabri mooy li ñu dajale fii mooy li ñu indi fii mooy li ñu bëgg a waxtaane itam ñi gëm jëf-jëf yu rafet ñu boole seen bop boole seen xol dénkante ci muñ dénkante dëgg muñ kat sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy genn wàllu diine xam ngeen ne li ñu tere lépp ngir na mën koo bàyyi faaw nga muñ li ñu digle lépp lañ la mu metti waaye muñee tax nga mën koo def ndax mu ne wata waasaw bil xaqi wata waasaw bil sabri dëgg nag mooy mujj ku ko xamul tey da nga ko xam ëllëg te fa nga koy xamee ji du la gënal kon doomu aadama itteem la war a namm jees yi itteem ndax nekk gu gàtt gi muy nekk fii te lu mu am fële ëllëg fii la ko jëlee ci nekk gu gàtt gii kon war naa na lu lool ba feesal jamonoom dell ak lu baax ndax sàggan ñu nu koy faral di gisaale ne di dund dundu bàyyi may yam ak ñoom mooy boo soxlaa rek fas yéene mu faju boo xiifee fas yéene lool fexe loo lekk boo naanee fexe loo boo maree fexe loo naan boo gëmmentoo fexe ko tëdd ba nelaw fexe boo ñàkkee wut fexe am kon mais suoo bàyyi may yi ndax ñoom itam ni ñu aajowoo rek la ñuy loolu mooy dund bàyyima mooy dund gi yées ci dund gi boroom mooy dugg ci bàmmeel di diñee ka fande du añ du reer du ndékki ba ba saa taxaw bu saa taxawee xaq yi amal jaam yi te war leen koo fay am lu leen fay ñu teg ko seen i ko ne leen xaq yam leen ameel muy di perte adduna ak àllaaxira bala muy àgg foofa am na yu bari yu nekk ci diggante bi ci kuraat am na ab nangiti ci waxtaan kon jaasi itte ma ne la nit ki war a nàmm ba mu ñaw mu fas yéene dara bañ koo raw te loolu muñ rek la ko defee la koy defe te nit mënul la jàng ndax kuy wàññi doo tàmbalee ci fukk wala téeméer faaw nga tàmbalee ci benn ci li nga mën mu woyes ci yow nga di ko def saxal ko léeg-léeg nga yokk da ngay euh, mujj àgg foo xam ne doo ko yëg te doo sonn waaye boo nee damay nekk ba mën a def lu bari wala damay nekk ba seex te xam seytaane ngoog daf naan la ndaw nga nigal bay mag ku la wax ne da nga nekk ba da nga mag xam tële nga da ngay nit ba man ñàkk nga da ngay nit ba am loolu lépp pexey seytaane la shaa'ir bi dafa wax ci mu doon tagg na ak ñu gën ci tagg yi ci doomu aadama boo xam ne jullit la lahu himamun la muntaha li kibaariha wa himmatuhu suxra ajallu min addahri am na itte yoo xam ne moom ay itteem yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yebe itte yi gën a ndaw ci yim amee moo gën a màgg jamono li mu day waar doomu aadama kon am yi war a gànnaayoo ba dugg ci xare bii nga xam ne moo dundam ju mu fas yéene dund ci àddina ba mu jeex mu jàll xeex rek la noonu yi dafa bari bakkan seytaane bànneex àdduna kan ku ci nekk taxaw jan fas yéene xañ ak texe ak jàmm ëllëg nga dugg ci dugg ci ngëm gu dëgër taraxlu mooy waaye fas sa bopp nga xam ne doomu aadama lu dara doomu aadama ji nekk ne ñaari malaayika ko yeew ci buum ci ku ci nekk jàpp ci buum waxtu wu rëy rëy loo ki ci suuf xëcc mu daanu waxtu wu torox loo waaye wàcce boppam ka ca kaw xëcc mu jëm kaw mu yéeg yëkkati ko kon toroxlu ak barik tuub gannaaw ku tuub bàkkaar yaa ngi mel ni ku musal am bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam nee na di leen jéggalu man day benn bis danaa ci jéggalu fukki téeméeri yoon dafa wax téeméer yoon rek waaye li mu jéggal kenn xamul mu toll te moom amul bàkkaar ndax li la taqaddam ko taxara kon nit ki gën a farlu gën a mën a wattandiku mooy sax war na fu mu toll di jéggalu tuub suñu borom màgg na màgg koo xam ne donc la mu laaj la darajaam laaj la màggam gi laaj la tedd ngaam gi laaj la sañ-sañam bi laaj kenn mënu koo jox xaq te lu ci manqué manqué nga da ne bu kilifa bu mag gën a fonk bu toogoon fii rek say dàll romb ko doo ci passé passé romb ko te day mu ne am nga droit da nga gis ne kon dafa am momit loo xam droit ci rek droit am ay xàqam kon man nañ cee dal ci sa kaw rawatina ku tal ne nga kon benn xasilu bët boo jëm itte woon lenn lu dul lu jëmul ci li lay dimbali ba nga mën jaamu yàlla rek tooñ nga loolu moo tax ñàkk amul wax ne ngeen yaay ëppante waaye bopp du fa doxum neen waaye nag bopp dana fa doxum neen am nañu yàlla jëggal ba noppi féeteeg ñi ñu amee xaq fay fay leen ah waaye loolu lépp nag doona ko xatul xataab li arab yi wax doona ko xatul xataab laaj na coono bu mag laaj na itte ju rëy laaj na farlu laaj na farlu kon nit ki na njëkk a gis ayi di boppam te itte woo ko te bañ a xool ayi di jàmbur kan ku ne am nga am nga ayib إن أبصرت عينك عيبا فقل لها فلا تبصري يا عين للناس عينه لسانك لا تذكر به عورة امرئ فإنك عورات وللناس أسره سبتي بوات بغي خوال أي بكنان نكب سببت به بل خوال أي بكنان دي عند المصيبة من مي أمنع أي أيب خوالكو سلام يوي بيتو تد عورة دوم آدم ينان أمد أي عورة سرين يأمنني لامين am nañu bët di ko gis am nañu lamiñ di ko wax fexeel ba di topp xaq waaye yow kenn bañ la topp xaq gis sa ayib yi moroom nag te gisuloo sa ayibu bopp ayib mënu koo gën a màgg ayib ju rëy rëy ngoog waaye ni ma ko waxee rek adduna xare la boo ci duggee di sallallahu alayhi wa sallam wax ne diine lu jàppandi la waaye ku ko bëgg a teengal rek yaay daw yenul li nga àttan yàlla binde na doomu aadama bindin woo xam ne li nga àttan boo ko yenoo bu ëllëgee nga àttan lu ko ëpp da ngay def àgg foo xam ne daanu ko waxtaane insha allah waaye li nga mën rek nga toll bu ko sàggane bu ko leem def ko nga boole teggin yu mat sëkk teggin de moo la lépp mooy tax lépp ba mat lu mu ànd rek loola yàlla soxlawu ko teggin mooy caabi ubbi àjjana mooy caabi ji nga xam ne mooy ubbi buntu texe mooy tax a mucc mooy joxe barke mooy joxe ngërëmal yàlla it ba di kon yomal xiyaam ak ay angaari jëf yu fees suuf si te benn teggin néew ci ko seet sax kenn du ko seet teggin dafa baax nga boole teggin ak yéene yiw mbindeef yépp li nga yéene sa bopp yéene ko ku nekk boobale sa mbindeef di ma waaye yéene nit lu bon ndax tooñ na ma la tax sama noon la la xañ na ma nangam yooyu sa yaa ngi koy sotle sa bopp yaa ngi xeex sa ci dimbali ko moom ndax boo ko waxee lu ñaaw bu ëllëgee mu taxaw la poñe la ndax da koy amal xaq kon jaamu yàlla gi nga jaamoon yàlla yaa ngi koy jox na nay ci sa tuyaaba ji nga jaamu yàlla te xamuloo sax yàlla nangu na koom déet bu ko jox keneen bu ci góorgóorlu sonn ci ba noppi jox keneen woor ba weeru koot nag yomal xeyam ñu foqati ko jox keneen mu si bëgg ko màgg julli li nga mën ci sellal julli gi ak teewlu ba yàlla bindal la ji màgg ëllëg nga jox ko keneen te li ci a bari noonu lay doon dara gën koo metti dara gën koo metti kon nit ki bi mu amee ay warugar diggante moom ci boppam waa diggante ñaari waa juróome jiitu coono yi sonn ci moom bor la yu war a fay te ëllëg dana taxaw bis ba nga xam ne mooy yowma yasiru lmaru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mriin minhum yowma idin sha'nun yuxnihi bis ba nga xamee ne boo séenee sa mbokk mi nga bokkal ndey ak bàyyi sax da ngay daw ndax noo bokkoon nekk ci àdduna sa mën naa am amel naa xàq yoo xam ne dana ko fayu te li ma am doyulu nga daw seen yaay daw seen sa baay daw seen sa soxna daw seen doom daw am nga lu la doy sëkk ñoom ñoom leen doy sëkk bis booba jaar na xalaat léeg-léeg di ko fàttaliku te nag suñu borom tabaraka wa taala sallallahu wa sallam nee na du boole ñaari ragal mukk ñaari tiit képp koo xam ne yaa xalaat ëllëg di ci tiit wala di ci am naqar bu ëllëgee doo bu ëllëgee doo am tiit waaye li ma waxoon rek ne dund baaxi na yi xalaat dara di dund rek nam la neexe doo bàyyi dara ngir yàlla doo def dara ngir yàlla bu ëllëgee nga rëcc rëcc buy xat ci <coughs> xalaat fii su bàmmeel ak lëndamaayu bàmmeel bu duggee ci bàmmeel day leer te daf fay am jàmm ci ko faalewul nag bu ca duggee lépp la fay fekk ndax jëfi doomu aadama yi yu bon yi yii safara la yu lakke yi ay jaani ñàngoor la yi ay jiit yi fett yi ay gaynde te jaan yooyu ma wax jiit yeeg safara si kat bokku ñu jaan yi jitt yi dul tur yi kepp waye niroo ñu sax ndax téeméeri jinni jiit na la ci sa nabu bët bi moo gën jenn jitt jëjë rek romb la ram xéñ la kon nak def yi nga xamné bu ñuy tek bu ñuy duggal jëm ji ci bàmmeel ñu di ko alawti ko ndax yàkkamti nay jëf yu baax day jëf yu baax rek la jàmm day am waaye bu dul moom day dana day waar lool day waar lool kon nga wattandiku xaq yi ñaari waajur laa njëkk a wax sa njaboot ci la ndax da nga leen di amel xaq sa doom bu juddoo war nga ko tuddee turu baax turu lislaam boo ko tuddee turu woo xam ne dañ koy ree reetaane wala ñu di ko ko mokkee wala ñu di ko ko xeebe bu ëllëgee da ngeen layoo ci tur wi bu ma tee daal jàng dara doo ko jàng bu yemal xeyaamee da ngeen layoo boo ko yarul itam sàggane ko mu yàqu sàggan ànd na ndoog nit ñu bon ñu dëng ba loolu indil ko ndëngte ba indil ko texee di ëllëg buñ taxawee mu poñe la te bu ngeen laayoo mu yey nag dañuy xala fab say rafet rafet rek jox ko wala ñu fab ay ñaaw téefam teg la kon xàq ngoog joo xam ne ju mat a taxawee la xàq yi boom xàq yi bari na waaye jamono bi dafa gas nañ ñëy ndax xàq dëkkandoo am na xàq dëkkandoo dafa yaat ki nga bokkal kër ki nga bokkal gox ki nga bokkal dëkk ki nga bokkal réew noonu mu amee àqi mbokkum diine noonu la ndax sa mbokkum jullit boo ko lu koy jariñ waxuloo ko ko mu sàkk ko wala nga xamal ko lu koy lor te waxuloo ko ko mu wattandiku ko bu ëllëgee da nga ko fay xaq jooju ndax léegi nit dana toog ci jataay ba julli jot mu rocc ko dem julli ji dellu saat ne pat xamal yow waxul dara lu xam nga ne waxtu wi jot na boo liggéey tam nga dem àq jooju la ñuy toppante as ci yi ñu ci def yéen ko kon muy bokk na ci gànnaay yi jiitu ak fàttaliku dee fàttaliku dee lu mën a dimbali ni la sallallahu alayhi wa sallam am na waa ji saaba yi daan tagg ci farloom ak jaamu yàlla am ak wéram jub ñu di ko tag bu ne waaw naka la ko def ak fàttaliku dee ah duñ ko dégg daal mu di ko faral di fàttaliku mu ne ko fa mu ne fa ngeen ko teg kon nekku fa da ngeen ko fekk nekku fa de dee fàttaliku it say bàkkaar ki day toog jotaay moom dong mu sàkk ci bés yi ci ak ci jamono yi waxtu yoo xam ne day wéet moom dong delloo si la nga lu mu sàgganoon lu mu jàddoon lu mu ameel nit ci xaq li mu ameel nit ci xaq te mënatu koo dabaatal mu di ko ñaanal bu juumee ba jëw ko wax ay rafet rafetam tagg ko bu dee ko fi jógee bu jullee ñaanal ko wala muy julli ñaanal ñi mu amel xaq yépp dana wàññi xaq yi bu ko jeexalu nit yomal xiyaam nit ki ne gis ay ñaawtee fi boppam moo koy jëriñ waaye ñaawtee fi keneen daf koy lor mu fexe xam ñaawtee fi boppam di ko delloo si bu ko delloo si ci xelam di ko rëccu di wattandik di seet ñi yem ak moom képp ba noppi te mu tane leen yàlla def mu tane leen bu amul woon benn dërëm it di yalwaan añ di yalwaan reer itam yàlla may ko jàmm mu fàttaliku ñi nga xam ne ñàkk nañu seen ñaari bët ñii dañ leen di wommat wala ñuy palamtu fàttaliku ñuy raam tey mag yi jëmm seen i cër mayu leen ko ak fàttaliku ñi nga xam ne amatuñu ay métit di leen bëgg a rey ba suñ sañoon dee lépp boo ko fàttalikoo da nga sant yàlla waaye boo jëlee sa xel teg ko ci borom milliards yi noonu musiba dal na la dootoo sant yàlla dootoo jaamu yàlla ak ñàkk dëkk ci sa xol ngay mëbët rek bu yemal xeamee nga am gàcce gu rëy gu rëy rëy rëy kon nag fàttaliku sa ayib yi sa melo yi bu fekkente ne nit ki seet na boppam bu amee xel dañ ne ah man de dama tayel wala man de ku bëgg àdduna la man ku bëgg daraja la man de maanaam xam nu ñu ko waxee ci koo xam ne ku la tooñ lu tuuti rek bala ngay am jàmm daal fayu wala nga def ko lenen lu metti wala dara do balé mukk yu mel non ni tubab di wax ku vindicatif yoy yeb ak di sax ñoy bañ te bañel gi du dara luddul lo xamne ni sharia santu la nga bañ ca kenn ndax sharia lim la santu nga bañe ko nit te du doon bañ bañ da muy jëf nga bañ waye bañ loo jëm ji ndax xamoo guloo fu jëm ji ci daan ko wax ci kala nekk ci sala kon farlu ko say bakkar ak say ñaawte te farlu ci ci amu ci nak yéen ko tuub bu baax yéen ko wattandiku boo si jógee jéem a xam sa daan waxtaane xam sa diine sa tàmbali ba newoon naa diine mooy li gën ci li nit am ci li nit ki amee lépp ci li nit ki mën a ñàkkee lépp bu ko ñàkkee waaye bul xeeb benn mbindeef benn bu ko xeeb gaa ñu baax ñi loolu lañ gënoon a fonk nee Seydina Jibril alayhi salaam suñu borom na ko ne demal ca adduna nga seet ca koo xam ne yaa gën nga indil ma ko waaye na nga ma indil koo gën mu wër suuf si juróom-ñaar gisul lu mu lépp lu mu jàpp ne moo gën lii ba xam ne gisul dara ba delloo def dem ci suñu borom ne ko awma ma sant mu gis benn xaj bu dee ba fulliku ba yax ya mu ne waaw te ma fab kii eh, man wër ma maa ko gërëm déet de naa ko fi bàyyi daal jéem na ko fab xelam dellu si mu bàyyi ko ba mu demee na suñu borom gisuma dara lu ma gën mu ne ko gisuloo dara loo gën déedéet waaye dellul nga seet bu dara ngir xaj bi mu ne man kon indi xaj boo demee xëy na xaj bi la may laaj li bi dem balee si ñeenti asamaan bay dem si juróomil ba xelam dellu mu ko dikk ne ko gisuma dara mu ne ko eey ba ay caaxaan yi demal laa wax dama la sant nga dem indil na loo gën wala koo gën mu dellu si wër wër gisul xaj mu fabat xaj ba ca juróom benneelu asamaan xelam dallu mu sànni ko fa dikk ne ko man daal dëgg dëgg gisuma dara mu ne gis nga xaj boobee boo ko indiwoon ngir jàpp gën loo amoon ci ngëneel danaa ko far ndax réew ngi sa xol bi boo ko boo yaakaar ni yaa gën loo ko gëne maa boole sàkk defaloo ma dara lu may jëriñ benn njëriñ a ma ko du yow du sa du keneen kon loo ko nit ki kon ndax si nga faral naa ko wax ci ay waxtaan ba tey euh, benn wàll yi boo xam ne dafa jaar ci yoon wu xat li ci des lépp bi ban ak ndox mu dajeeg benn xaj dal di yëg ban bi wàcc ci ban bi wàcc xaj bi jàll taalib yi ci moom ne ko sëñ bi li nga def day na waar jaaxal ñu de xaj bi mu ne xaj bi daf ma gën fuuf ndax amul benn bàkkaar suñu borom togg ko jëf te xam naa ni fekk naa ci bàkkaar ko amul bàkkaar moo gën ki am bàkkaar noonu mooy melaw ñi am xel gaañu baax ñi nga xam ne nit yàlla lañu du ñu xeeb kenn du ñu xeeb dara boo jàngee xasida gi yaa saaxibun istigaal kul ahad da nga gis ne borom ngi wax naan in taxju annaka du fadlin ala ahadin qabla najaati gadan min ayi insaanin faalam bi annaka du jahlin wa du safahin wa jaaka al udbu wa istidraaju shaytaani inna bi rabbil wara min huna min sharri al hasadi wa sharri al insi wal jaani su fekkee ne jàpp nga ne yaa gën kenn kenn ku mu doon te ëllëg ñëwagul bëgg a mucc moom mu moom moom mu alko ne la wóor ne ku réer nga te ku dof nga te nag li ñuy wax ut bu mooy naw sa bopp dikkal na la te mooy yées ci wastu biraaji seytaane seytaane jay na la nax na la mun noo ngi muslu yàlla ñu musloo yàlla ci yooyu ma tuddoon seytaane ak yooyu rabbil waram min min sharri xasari wa sariñ ci wal jeex kon jëmm ji feeg mu ngi dund war na jëlee ci xelam ci yu bare bare bare bare bari bu mu xeeb kenn ndax bari na koy xeeb fekk na moo la gën ñaari téeméeri yoon rabbani yi dañu wax kam min sadiqin fi lgaba wa kam min aduwin fi lada kam min sadiqin fi lgaba wa kam min aduwin fi lada bari na xaritu yàlla bu nekk ci di jëf jëfi dof jëfi tof maanaam nekk ci réer ak caaxaan bari na it noonu yàlla boo xam ne fil ada maanaam fil ibadati mu ngi jaamu yàlla ñu waxe woon rek ne mën nañoo fekk ci biir jàkka yi ay noonu yàlla fekk ci ay xarit yàlla waaye ndax mujj rek a tax nit ki nag fekk lu mu doon waru la naagu te bu amee xel xelam du dal mukk ñu gis ne kon suñu borom wa taala am na jaam ñu farlu ragal ko lool bokk ci nit gën a ragal yàlla ñu ko gën a xam ñu ko gën a farlu seenu mujj dana ne mujjub iblis ñu tàbbi ca bon bon ba naka noonu safaan bi xam ngeen ne ku ñuy bint eh, Hind bint Utbata Hind moom mooy doo mooy yaayu Muawiya ibn Abi Sufyaan moo doon soxna Abu Sufyaan bokk na si ñi gënoon a bañ yonent bi sallallahu alayhi wa gën koy soxare bokk na si ñi gënoon a bañ Sayyidina Hamza tax ndax Seydina Hamza moo rey baayam ak yeneen mbokkam yu bari mu bañ ko ba nga xam ne dafay neex laate ku ko ko reyal bi ñu reyee Seydina Hamza mu dikk sakk fi mu tëdd mu xoof nopp yi xoof tuñ yi xoof bakkan xoof mbari bët yi xoof loxo yi xotti biir bi génne res bi di ko ñëy ndax soxare ko rek ak bañ ko nga xam ne comme mi ngi def li gën a garaaw li gën a rëy xare ko yàlla bu toll ne Hamza xam mooy sayyidu shuhada yi ko sallallahu alayhi wa sallam waxe mu bëgg ba neexal waxas yi mi ko rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom du boole mukk dereti ci biiru Hind ak safara kon caay-caay gi mu doon def ma yàlla baal mu gën a nekk ci saxaaba yi looloo ko texeel looloo ko yóbbu àjjana ndax dereti sayyidina Hamza ji jàlle ci biiram jaar ci putam bi bu ko booleeg safar mukk ñu ko yonente salatu sallallahu xam ne kon suñu borom mbirum kenn war koo naagu kenn mun koo xamee ki daf koy jox rek bokkam ak léppam day topp ndigalam di ko ragal di ko yaakaar ñu toll rek waaye mun loo xam mukk li amit ëllëg moom rek ko xam yi mu kon yéen di bunt ak daf moomu di mu def loolu ko dara la ko wàññiwul ku ñu wax dafa jekki moo Sufyaan Safwaan ibnu Umayya ci mbestarum Kaaba ga fàttaliku xare Badar bi seen xarit yi ak seen mbokk yi ñu rey kenn ki ne tey jii day biir suuf a gën kaw suuf maanaam di dund ci kaw suuf a ñu suul laa ko gën Umar ibnu Wahab ne man day Safwaan su dul woon sama njaboot yi nga xam ne bu ma dee wacc dañuy tumu ranke danaa fab sama jaay ci ji dem Madinatu Munawwara fekki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ray ko ndax xam naa bu ko rayee dañu mucc waaye kon buñ ma rayee it ñëw si bàyyi dañuy tumuranke safwaan ne ko dàddul naa la loolu lépp sa njaboot yépp danaa ko booleeg sama njaboot yar ko yow yar leen te du ma sàkk benn le kon nag dem naa dal di gàddu jeesim dem madina madinatul munawara ba mu duggee rek ak si di laaj yonente bi salaa sallam sidna omar gis ko dal di daw jiitu si ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam Umar ibn Wahab kete ngi ni tat mudul ay indi ko ñew ngir jam muk muk muk muk ni ko anam ni ko ma nga ne da ci jaati na ñew Umar aksi sallallahu salaam ne ko doon ci la indi ni ko sama doom jigen japp la bëgg japp ngeen bayi ko ma yobale ko mu ne ko dedet yow nga tok ci ndastarum kaaba ga yak ya, sufan ibnu umayyah yeen ñaar dong dong dong kenn ñu teelu leen ngeen fatali ko ñi ñu ray khatla badr ñi ñu ray ci badr jéem nga wax ko dal di nekk li ni ko waxee yépp ba àgg Umar nag yow daal ñun ñaar ñu nekkoon foofa daal bu fekkoon ne kenn rax nanu ma ne moo la ko wax te sax kon dana ma jaaxal la bañ ko waxantee rek laa dal di aw yoon bi te dama dama dawal sama fas gaaw kon xam naa ne kenn wax na ko yow daal yeneen dëgg nga li nga wax daal li ngay woote mu ngi ci yow man da ngay tuub daal di tuub nga gis na Umar ñu wax moom la ñu ko taxawal ci mooy di gën a rëy rey yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaye si yéen si mujj xam ne kon suñu borom ay mbiram day day waar ben xamaar boo xam ne dafa amoon butigam di ca jaay li dul ñol mooy ndax mu mën nañuy naan nga xam ne béréb boobu bépp siiw na ci caay caay ñu ne ci daal yàq na xale yépp ci sàngara dafa bon mu benn sëriñ nitu yàlla ko am doole ko fa dëkk ca carte ba mu ne ne ko dama bëgg nga ñaanal nu waa jii mu dee ndax jàmm am ñu ne waaw baax na parce que bu të bu tëggut ji suñu borom man ko ilham ni ko wattul sa bopp de ko ñaanal dara sama xarit la de sama xarit dëgg la ko ñaanal mu tam mukk dañ da dal di xëy dajeeg mu ne ko eh yow dégg naa dañoo ñëw ne nga ñaanal ma ndax ma dee cay ñaanal da ma mënal dara mu ne ko gis nga du ma la ñaanal dañ ñëw wax ma loolu de nekk ñu ko ni ko ko borom xamale mu ne ha man ni mu ne ko waaw mu ne kon damay tuub di tax nga tuub def ngeen sam jaare kon nag ni nga suñu borom yuli di leele fi nahar yuli di nahara fi leeli moo di am si wax wéru mu wéru mu wax moom doon rey si yonente bi sallallahu alayhi wa tamit di tuub xam nga ni sidna omar moom ku nit ku la ku doy day xam lu yu nit ñi xamul daana wax sax dara yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk aaya ji wàcc aaya ji wàcc dëppoog li mu wax wax na ni day xam lu dëgg lu nit ñi xamul daana wax sax dara yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk aaya ji wàcc aaya ji wàcc dëppoog li mu wax yonente bi jàngal bi toog moom sallallahu alayhi wasallam ñu ngi laaj nit ñu ngi toog bu Omar wax wala mu def ànd ak ñu bu aaya ji ñëwee dëppoog bu Omar wax لأنه الحق مع عمر بن لكن لا تغير المسك بالخبر والخبر لا يخدعونه بما هو الخبر وهو الخبر هو عندما تكون في الجنة وعاد أن تخلق يوم دخل من الخير ورفق لك تنمر بها تنمر بها من الجنة والجنة وعاد يوم دخل في الجنة كنت خمسة بابا وإذا يعني بك nit ni ko yàlla bindee fitra la al islam diini fitra dafa xolam ak ci nit dafa nangu diine ndax ni ko bindee la muy li mu diine muy lu war a jàpp diine war a matal lépp boo tee mu jàng tàggali diine wala diine ko dafa mu ne koy ban ak ban ci وسلم dina day neex ci moom yëngatu ko nag yu bare bare bare yoo xam ne dafay niru dara te du dara te day yóbbu nit ñu bare te woy na yàlla yi li ci kaw ci suñu kéemaan bi ku daal gis kéemaan ci sa kanam dalal na waa jàngat dañuy wax bal karaama li kulli saasati da dan wala uxsiya kulla xaarati na nga seet ci rëdd bi ndax loo ko ci jëf ci xarlu ak meloo wala déedéet wala mooy dañoo dàq ni karaama bu ci kaw def ni kéemaan ku daal di def kéemaan ci sa kanam la dal na waa jàngoog dañu waxal karaama li kulli faasati dàqban wala uxsiya kulla xaarati rajul maanaam di atal sa kuréel bi ngir jéem a xam ay mbéyam am na dara jëw yëre jëw ak lekk yàppam sa kanam lépp bu doon بالنسبة للطبقة طبق الطبق بجبل بلا ما تقدر بلا فيها ولا جو مال بلا جو جو بايل نستل بايل نو سبب ابنو سجف بايل كنان بايل زي بايل ñak yermane ci nit ñi bayil sopp yëkkatiku tiim say ay say morom ñu gisale leen kaw ndax jëw moom dañu benn baatu jëw mo gëna a foor fukki njaal kon lu ban gannaaw bu ñu ko mënee lekk lek yàpp nit mëdd dañu sayyidatna aisha radhiyallahu anha dafa togon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ah, ni digeen ñew wax soxlaam wax wax ju rafet ju leer ju jup ne ah ak am bala fa bu dul woon ne mbubbam mi dafa gatt ñu ko jëw nga ko de mu ne ko ha al li wax di dëgg sax mu ne ko bu dee dëgg bu ko déggoon mu naqari ko ko déggoon du ko neex keneen ki nga xam ne sayyidatuna Aïcha ba tey ak gudd mbubb mu ne ko xaasilikul mu xaasilikul mbubb yàpp mu ne ko boo ko wanaas woon rek dara laa la dul jëriñ du ma la fee dem safara faaw nga jaari ca ak mu jaari mën a dem ñi nga xam ne itam sayyidatuna Safiya soxna si yonent bi la woon alayhi salaatu wasalaam لما يلا بعد دفن يكون كنجي ولا دي لول سيدتنا عايزة حسبك حسبك من تصية هكذا ما أنا ميرة كلا تول منك واحد بعد واحد من بنيك تستنى من تيجي جي مباحل مباحل كحات محمد كن جي نوري ري ري جستل نيو يس كفوف لك واحد سخل درتي حب الذات نيكو شف مو عندي nga xam gisal ku ko def bu yomal xiyaamee ba ñuy fay nit ñi dañ naan la ki taxoon ngay jëf muy ki nga doon gisal demal mu fay la daa yàlla du la fay yonente bi salaa sallam nee na suñu borom axna shuraka yi suñu borom moo ko waxal bopp bi tabaraka wa taala an shirki lépp ko boolee keneen moo mu génn ca wacc wacc kooka loola naka noonu añaan nga xam ne moo lakkoon iblis ndax ni mu añaane woon aadama alayhi salaatu wasalaam moo xawaa ci àjjana ndax bi ñu ko ci sujjóotlee ba mu nekkee tën mu bañ ngir defe ne ne moo ko gën ndax ne moom dañ ko bind ci safara te safara lu leer la ci nit bind ko ci ban te ban dafa tëx lëndëm ñuul mu daal di sukkandiku ci loolu muy xiyaas bu yàqu ne moo ko gën ba bañ a si jot ci moom ba ñu alak ko duñ ko fekkee àddina mu añaane ko ba fexe ba génne ko moom iblis añaan googu mu añaane aadama moo ko alal kon añaan léegi day lekk yi nit ki tuyaaba yu bari yi mu jaamu yàlla añaan daf koy lekk ne ko moom iblis añaan googu mu añaane adam moo ko alal kon añaan nee ñu day lek ni ni nit ki tuyaaba yu bari mu jaamu yalla añaan daf koy lek ba mu set lecc dara jere ko reyna ñew yeesati reyna rëy sun borom ko jago ko ci fekk mu lak la ridaa'uka rabbil kibriya wal bahaa kama izaruka ya barul jalalati wal majd borom bi tabaraka wa taala rek mo jago reuy ndax mom rek reuy mom rek reuy dañu ne war na ci jullit bi ñu jikko jikko sun borom yépp ma adal kibriya lu dul reuy reuy mu sun borom doon ko jago wa adami rahmatu lil insani ñak yermane ci nit ñi sallallahu alayhi wasallam neena man rahima rahima walaw dabihata asfurin bo yërëmee rek yalla yërëm la doon ci picc mu ñu ray la nga yërëm ko sun borom dina la yërëm yërëm leen ñi ci suuf suñ borom yërëm leen ñoom ka ca kaw yërëm leen wala maa wi daañu bind ne am na benn jigéen joo xam dafa moomoon boppam lu ko soob rek mu def ko benn bis muy dox ba sakk benn xaj boo xam ne sëpp kam kàmb ko am ndox mar bari def na mu xaj yi di def mënul naan mu daal di ni takkoon gi mu takkoon xaar ko faste ko yow ci dàll wi yoor ko ci kàmb gi génn ndox jox xaj bi mu naan mu delluwaat yoor ba xaj bi man demal boppam bi mu deewee ñu gis ko ci teraanga ju doy waar ak nguur gu mag ci àjjana biñ ko laajee lu waral lii mu ne xaj bi ma yërëmoon moom la sama borom yërëm ñeneen ñu wax ne ci olama wu koo xam ne bi bu faatoo suñu borom daf ko xamal ni ko jéggal naa la ci sama yërmande waaye ana loo tax loo defe ne moo tax ma jéggal la mu tudd jaamu yàlla yi ma mës a jaamu yàlla yëpp lu ci nekk mu ne ko sa bopp nga ko defal defaloo ma ko ba mu jaaxle ne ko man xaw ma kon lu tax nga yërëm ma mu ne ko benn bis day faral naa koy net lu sax ci conférence yi benn bis daal ci bisu mbooye bu tàng yaa ngi dind am weñ woo xam ne dafa mar ba bu naanu loon bis boobu dee bi nga sëppee xale ni bi yëkkati mu tàcc di naan nga bañ a bind bàyyi weñ yi ba mu naan ba ba màndi naawal boppam nga soo kon bind noonu nga yërëmee weñ moo tax ma yërëm kon ku amul yermane mom mujj ñaaw ndax yi mu wax mu di juróom-ñaari ayib yii di di xol di rag xol di ay feebar asamaan su ci nekk malaaka daf fa toog muy malaaka dañ ne ko fii la jëf yi jaar ci bunt bii lay jaar wéy dem ci xadra ba mu nangu ko jëf di fi jaar yow jëw jëw rek lañ la seetloo mun nga visité gis ju ñëw nañ ko fooyee bu xamee ne xolu borom te da ko ci gis jëmal nga ca wala mu nga ca lan wa bu mu jaar tëjal bunt bi damaa dama far lool di jëf ma yërmande ragal yàlla farlu di jëf ba faat jëfam ji rëy lool malaaka yi ci suuf di ko naw di ko yéem malaaka mi yóbbu jëf yi fab ko ba àgg ca bunt bu njëkk ba ñu ko déggul jàll xaaral gis ji mu xool moom bëtu jëw rek lañ ko saxal lu baax bu jëw nekk lu mu tuuti tuuti jëf jëf dana ko ci gis dal ne ko ki yàlla du ko nangu taxañ ko dóor ko ko ci bët keneen jëf ñu jaar ci buntu bu njëkk bi ñu seet gis ñu ci dara luy nuru jëw waaye gis te gis tal ñu taxañ ko sànni ko ci bët da ca asamaane ñetteel ne ñu gis ci oj bu mooy naw sa jëf buñ ko gisee ci jëf ji fekk jàll na yi yëpp seet nañ ayib yooyu yëpp amu ko mu demee nag ba ca ñetteelu asamaan suñ gis ca ojj moo di naw sa jëf ñu daal di ko koy delloo ba ca asamaan su ca tegu fii seet kañaan xool jëf ji gis ci kañaan ne kuy suñ borom du ko nangu lóor ko ko ci bët ci def ñàkk yërmande bu fa àggee kooku ñàkk yërmande rek lay seet ci jëf bu ko seetee bu ca nekk rek dana ko gis daal di koy taxañ sànni borom ci bët kii dafa bëgg daraja lu ëpp waaw kii bëgg daraja rek wane ci xol bi ba fees su sañoon fu mu jaar nit ñëpp dañu naan nii est-ce que est-ce que jëf ji ñu seet jëw newu ca ngistal newu ca naw sa bopp newu ca sañaan newu ca rëy newu ca ñàkk yërmande newu ca waaye bëgg daraja ca nekk ñu sànni ko ko ba ki nga xam ne muy ñëw ñu seet yooyu yëpp duñ ko si jëf jëf jooje mooy jëriñ borom kon ayib yooyu nga xam ne mooy dafa di xol nit ki dafa war a góor góorlu ci dindi ko am na ki nga xam ne garabu rëy wala garabu añaan walla wala garabu sax garabu ñàkk yërmande wala garabu njistal sax na ci xolam waaye nag gën a care moo tax ne maanaam góorgóorlu daal jëm koo étouffé maanaam jëm koo naj yi ma daj ndax doomu adama suñu borom ko bindee noo xam ne lu mu tàggatu rek dana mën ca loola loo xam ne lii ku tàggatuwul doo ko mën gis ngeen ko ci lépp li ñu wax yoga entraînement yi ñuy def ci sport ak te yépp ñu bitti doomu adama mel cër yi noonu la bis bi mel boo dee di fàttaliku dee di fàttaliku da ngay mujj rek ragal yàlla lool boo dee wéet di fàttaliku sax sa gannaaw li nga wees ak li nga def mu tiital la fàttaliku sukuraat ak bàmmeel ni mu doyewaat xam ne kan mu xat la xam ne bu ñu ci roofee nit ki ma ne suñ ko sóorul woon sax bu bëggee jóg du mën a jóg càngaay li ñu ko laxas loxo ndey jooram bi nga xam ne ci la tëdd amul fenn fu mu sukkandiku mënul walbatiku sax buñ ko sóorul woon sax bu bëggee jóg du mën a jóg ñu sóor ko nag ba mu fees ñu jël ko dem bàyyi ko fa rek ba yomal xeyam nit ñuy dox seen soxlaa ko waxat yi moom bokkatul bëgg fa rek mat na xalaat lool <laughs> day day waaw kon nit ki bu dee xalaat yooyu di ko faral di def wala muy déglu béréb waare yoo xam ne dañuy wax dëgg rek wax li am mu di ko faral di déglu yooyu yëpp day yokk ngëm yooyu yëpp day yokk ngëm naka noonu siyaar ay bàmmeel yëpp day yokk ngëm ba nit ki àgg foo xam ne du ko foogoon waaye ki nga xam ne mooy ki ma waxoon dund dund bàyyi ma ni ma waxoon ne ku ko dundee rek ah sallallahu alayhi wa sallam de nee na yamutul maru ala ma aasha alayhi wa yuxsharu ala ma ala ma ash alayhi wa yuxsharu ala ma maata alayhi nit ki li mu dund li mu dund lay dee ndax diggante si nga xam ne fi la nit ki buqee ba tamit di xool asamaan nga xam ne malaayika day xool amatul ati adduna déggatul gisatul ci adduna dara dara dara dara dara diggante boobu ba ba ruug yi rot yàlla rek xam ne fi biir tax bari ak doy waar doy waar a fi nekk doy doy doy doy waar a fi di ko jaaxal di ko tiit yàlla mën na koo way fan kon nit ki ji rek lay def day yéeg dank nank rek bu newul yàcc ci bayyi bopam rek lab ci aduna ay soxlam ay bëgg-bëggam li mu muy jëflante nit ñi rek mom day gëna doy war rek parce que ragal yàllaam day dañ gëm yalla am day wañi ko rek day wañi ko di wañi di wañi di wañi ko rek ba dee ñew fekk kenn mu muy góorgóorlu lu bon bon di lu bu yagge dund nga xam bis bu ne mu yokku tax nit ki war na weer wu ne mu seet ndax weer woo la gën wala ci weer yi la gën bu fekkee ne weer woo passé ci la gënoon rek mm, juum na daaw ak ren man daaw ak ren lu ko ci gën ndax ren laa gën ci daaw man daal daaw laa gën a farlu daaw daal daanaa def naa nga naam te def ma ko musiba ngoog waaye bu la wóoree ne ren nga gën ci daaw nga sant sa borom te gën a ngeen booti déwén ñëw nga gën a ci sax ren jii bu yàggee da àgg foo xam ne fooguloo ko waaye nag sa bopp mooy yenn nekkee yi ci àdduna fàtte sa bopp ku fàtte sa bopp nag fàtte yàlla ku fàtte yàlla yàlla fàtte la kon doomu adama bi dafa war a di jëmale xolam ci yàlla wala bati xolam jubale ko ci yàlla adduna ku fi nekk am jëfi adduna yoo def ndax waru yi daf sa nekk te war la te mën loo koo bàyyi da ngay dundit te kuy dund faaw mu jëf jëfi kuy dund waaye nag bu labal saxal ci àdduna ak mëbët yu bari di jël si bokk na ci liy dimbali nit fàttali ko dee am xarit wala mbooloo moo xam ne boo fa demee daañu waxtaane lu baax mu fàttali la mu mel ne lu xomaat ñu koy nàmm di ko fomp man la xol ndax xoolal a dama dem yére yi ñuy sol boo ko solo lu yàgg day tilim kon mu aajowoo fóot nit ki nag bu fekkente ne am na dog bu muy def donte sax du woon jàng alxuraan du tudd yàlla ci ci dog boobu waaye day delloo si fàttaliku li ci gannaawam ak li ci kanamam rek dana ko jëriñ lu bari dana ko jëriñ lu bari sallallahu alayhi wa sallam nee na bàyyi naa fi ci yéen ñaari waarekat waarekat bu ne cel ak buy wax waarekat buy wax mooy alquran alquran jàng ko lu ama am solo la waaye waarekat bi ne cel nag mooy dee mu nag nun nanu dee ba daanaka dootuñu waar musiba mu réy ngoog moo di raggi xol ku ko def sa xol ragg na alquran nag jàng ko li muy jëriñ kenn mun ko wax xaraf ci ne li muy indi sayidina ahmad ibnu hanbal lu mu génte gis suñu borom tabaraka wa taala daf ko laaj ne ko ana lu gën ci lu la nit jaamoo ban façon jaam moo gën xeetu jaam wi gën laa bëgg xam mu ne ko jàng alquran maanaam gannaaw def farata yi mu ne ko xanaa ci ko xam maanaa yi bon di ko seetal mu ne ko ku ko ku ko xamul xam ne kon ñu koy faral di waxee rek doo ci ne alquran ko jàng doy la nga teewlu ne li wax suñu borom la nga magal ko gep magal djiblu penku ya, akum njàpp xam ne wax yalla ngay jang tabaraka wa taala rek surtout yàlla yalla rek ko xam bo ci xamul dara yit ku sorul ijji sax la jang alquran astaghfirullah al azim ak salatu ala nabi lu re re re la na am ko jamono ni ya, won yooyu yep ba waxtu mo def mënu ci leen ban wax lañu warona ci wala mu ne ci laaj bo bopp def na lu bari han d'accord kon nag nit dibale xolam ëlëk du xolam ndax jaamu gum ma doon boko ko def rek day mu nga bëgg ko ba doote ci mom ta bopp boobaa yaa ngi jaar ci yoonu texe bu texe bu mag da ngay sellal sa jëf ndax nit ñi ko yàlla bindee fitra la al islamu diinul fitra dafa xoolam ak cëram yëpp dafa nangu diine ndax ni mu ko bindee la muy lu nangu diine muy lu war a jàpp diine war a matale lépp boo gisee mu jeng tàggale diine wala diine safu ko dafa feebar mu ngi mel ne kookuy lekk ban wàcc ñam yi ban neex ci mom torop waye bu delo delloosee kon du ne day neex ci moom watandiku nak yu bare bare bare yo xamne da fay niru dara te du dara te day yobbu nit ñu bare ka way wote yi ni ci kaw ci ni kéemaan nit ko dal di gis kéemaan ci takanam da dal ne wa jangok dañu wax bal karamata li kulli fasiqi da'ban ban walaw usiya kulla khariqi na nga seet ci def lii ndax naw nga ko ci jëf ci farlu aku meloon wala déet wala yi dañoo dàq ne karaama kuy faasiq rek yàlla du ko def ci yow faasiq mooy kan faasiq ñaar la faasiq bil jaarixati ak faasiq bil aqdi maanaam bil aqidati faasiq bil jaarixati mooy na ne kii day naan wala dafay màtt nit ñi rek wax yu bon kenn baaxul ci moom mas naa dégg nit ne koo ne koo ne moo baax rek la muy def daf la ump ma ne auzu billahi loolu mooy ñaaw njort dëgg nag ci doomu aadama bi nee na koo ne moo baax la muy def daf la ump day na waar de faasiq nag day boole ñaaw ci fi yooyu mën nay naan sax ndox mu bon ni wala muy sàcc wala yooyu yëpp koo def faasiq nga boo xaroon asamaan si wàcce jant bi du karaama maanaam istidraaj la yàllaa lay jey rek ngir ëllëg ñu war la duma duma yu metti ndax li ngay def abal karaamata li kulli faasiqi daa ban wala oxtiye kulla xaariqi suñu borom dafa bind leer bind ñooñ leer ñoo xam ne ñoog leer a ànd leer di leen dimbali ñuy dimbali leer bind lëndëm bind ñooñ lëndëm muy seytaane yi ak ñi ñu yóbbaale ñi leen topp ak neen bind lëndëm ak neen sàkkal ko ñoom muy seytaane ak ñu ànd ak seytaane seytaane ko bind ci lëndëm kon mu am ay dimbal ay nit ñu koy dimbali ci neen ci jëmale nit ñi ci neen rek jëmale nit ñi pucci po jëmale nit ñi ci mbiri àddina jëmale nit ñi ci xeebaate jëmale nit seen dund ci loo xam ne du leen jëriñ ëllëg si daf leen di lor malaaka yi ñu ngi leen bind ci leer ñooy ndimbali nit nga xam ne ñoo jaar ci yoonu leer di dem ñooñu nga xam ne suñu borom daf leen defal tawfiq ak sadat nga xam ne kon suñu borom tabaraka wa taala bu mu bindee malaayka yi ci leer def leen ñu limbali ñi ci leer ñi ñooñu leer dafa leen tawfiq boobu ak sadat boobu léeg-léeg leer fenkoo ak lëndëm mu mel ne masalan sayidina ibrahima mu adham duggee ci benn bato fekk ci benn juif benn yahud bu bari xam-xam te a jaamu ñu waxtaan ba miinante yahud bi ne ko yow xam naa li ñuy wax wàllu ci seen diini ji ci ñooñu nga bokk ndax sama xam-xam xamal na ma ko waaye dama la ñun suñ diine ñoo gën a jub mu ne ko jox ma jox ma lay ma tegtal. Mm. ko waaw mu ne ko ngeen wàcc ci géej gi daal di. تخلي لهم من بلد مخمي اللي جملة دائما من أسمي أه بما دي في الدين لفي طرح تكون دنا طرح الدين لا لتخلي مومت من الدو في جيجي يعني بل بواس في جيجي من يقول يو جامبار دبق خمنا نعم لن ينك سين دين دي دبق لك وهي بكي خمنا نعم نولين دنك لكي دبق نو نعم. أنا عبدير وهي نك دبق لك أي شاك mu ne ko sart yi naka la mu ne ko duñ dugg ci jàkka ndax bëgguma ko buñ dugg ci jaamuwaay yowat yi ndax bëgguloo ko buñ dugg sama kër buñ dugg sa sax ci dëkk dañuy dëkk ci àll bi rek mu ne ko ba tey waaw ñu toog ñetti fan lekkuñu naanuñu gisuñu dara luñ lekk yowat bi dal di dumoolu am lu mu jàng dal na ngam num xaj di ñëw nank ñetti mburu dikk ba ci kanam yahud bi mu waddal ko fi daal di dem yahud bi daal di fab di lekk woowut Cheikh Ibrahim Adham ñoo ngi ko ñëwal ñu lekk lekk rek moom ba suur Ibrahim Adham daal di dellu ci yàlla rek suñu borom daal di def ñu dajeeg benn jëm loo xam ne benn xale lu bu rafet bu set a set a set a ñam woo xam ne kenn xamul na mu tedd ak na mu teg ko ci kanamu Cheikh Ibrahim Adham mu daal di tàmbalee lekk woo yahud bi yahud bi bañ mu lekk ba suur ñu indi ndox mu raxasu yahud bi dal ne ko waaw man de sama xam-xam ci biir yam yow weesu nga ko mu ne ko bu rafet rafet mu ne ko loo ko weesoo mu ne ko su ma neexoon mën naan géej gi mën naa fab sama loxo teg ci weer wi yooyu yëpp mënuloo ci dara mu ne ko géej gi moom bu ko naan ndax ay bateau ngi ci da lor ñooñu waaye tegal sa loxo ci weer yi ma gis mu daal di yëkkati loxo mu teg ko ci kaw weer mu ne ko yéen a lu gën diine kon damay tuub daal xamne kon leer dana dajeg lendum waye leer ëpp doole lendum li ñu waxoon ne wa bal karamatu li kulli fasiqi da'ban wa la tu'ti kulla xaariqi moy xaalu yahud bobu le mu ne kon leer moy li nga xamne ñeriñam andul ak lor lor du ca mujj lendum nak lum la nirul indi luy niru lor luy niru ñeriñ lor ci mujj da nga and ak mom rek dem safara li am solo kon moy tekkale yalla wone yalla nit kii wane yàlla mooy ki am solo suñu borom tabaraka wa taala ne ki ma gënal ci nit ñi mooy kii wane yàlla ki may tegtal nit ñi maanaam ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy kii tax ba nit ñi bëgg ma maanaam kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di xamal yàlla kon nag ki leen di sànq moom mooy ki gën a ki gën a bañ kon nag gannaaw lëndëm moom mooy kéefar mooy lëndëm tey ngëm mooy leer ñi nekk ci leer lii seen warugar mooy xamle leer gi te mooy xamle yàlla wamat nit ñi jëme ci yàlla buñ ko defu lor la ñuy doon ci nit ñi dootuñu doon njëriñ lor la ñuy doon lor kese Seydina Xadir mu ànd ak yonent yàlla Muusa alayhim asalaatu wasalaam ñu dugg ca gaal ga leen doon jàlle dañoo gis picc mu tuuti naaw ba ca kaw mu ñëw wàcc ba ci géej gi mu cof benn cof yëkkati ko tuuti waddal ko dal di naaw dem sayidina xadir ne yant yàlla musa alayhi salaam xam nga lu picc mi wax ko déedéet mu ne kon nee na li ma xam lépp ak li nga xam buñ ko boolee woon ci xam-xamu yàlla bi nga xam ne mën na koo xamal mbindeef waxuma ba ba nga xam ne mbindeef du ko xam ni mu ëppantee mu ngi mel ne toq ndox bi picc ni cof ak géej gi ni mu ko ëppee géej gi mu ko cofe ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi llahi illa kama naqasa hada al usfur bi noqratihi min al bahri xam ngeen ne lu ëppante la ci tax boo gisee ñu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu ala nabi yi ñuy def julli ñuy julli ci moom du ko jëriñ dara maanaam yi moo di rek géej gi boo yóbbuwoon sa pot ndox wala sa kuddu ndox dem sotti ko ca yokkuloo ko yokkoo ko noonu la tegtale ndax waxuma yonent bi sallallahu waaye saaba yi gannaaw ñoo tëraloon l'islam ñoo xeex ba xàll ko ba nit ñi nang ko bépp jaam bu jëf ba ba saali taxaw bu jëf ci l'islam rek la nga jëf la nga ca am daal di ko ca am booleeg leen ñu jëfoon moo tax ñu ne saaba yi kenn mun leen a jot ci jëf mën nañ leen a jot ci daraja ndax daraja moom mu ngi aju ci tabe sama borom rek ku ko soob mu jox la ko mën nga am nit mën na am sax daraja yonent te du yonent waaye nag ci jëf moom sahaaba yi kenn mun leen cee jot cheikh ahmad tidiane radiallahu taala ni mu ko misaale mu ne suñu jëf nun ak jëfi saaba yi mu ngi mel ne mellantaan wuy dox ci ak picc muy wax përintaan ni mu gaaw a buy naaw ci ci jaww ñu noonu lañu rawante waaye ñu gën a bari ci nit ñi nag dañoo jàpp ne li ñuy wax mu kaashefa mooy kashfu mooy wilaaya borom kashfu mooy borom wilaaya maanaam ki mën a toog fii di jàndoog Sénégal gis lay xew ca Ndakaaru di ko nettali dañu jàpp ne kooku mooy wàllu déedéet ndax ka suku baax dana ko am ku bon dana ko am seytaane dana ko am wali dana ko am yonent dana ko am malaaka dana ko am seytaane iblis diggante penko ak soow fa gën a sori ci soow ak fa gën a sori ci penko ci xefinu bët mën na ko feexaatale mën na dugg ci ak ni jaan ñi toll mën na dugg ci kenn ku nekk ci xolam génn juróom-ñaar fukki yoon mu defandoo ko ci benn xefinu bët ba doomu aadama yi ci aduna daj moom góor googu la góor gu ban googu la mën na loolu maaf la laaj bu bare mu tax laaj bare mu tax nan taxaw kon nak yalla ñu koy ñaanal fu tollu euh neena li leerlu mooy jurum asaka neena ñi liggéey nan lañu asaka ak kan lañ ko war jox jërëjëf jazakallahu xayra jasaa yi am naa mbit ndax laaj bi daanaka suñu waxtaan rek laaj ni kon loolu wane na ne kon seeni farata li nga xam ne yàlla teg na ko ci seen lor te di leen ko laaj ëllëg te asaka di li ci gën a jafe matal ndax jullee ko gën a yomb waaye seet ne ko gën a waaye fi nga xam ne li muy am wërsëg bi muy am mi ngi ciy seet xaq yàlla bëgg koo génnee di laaj nag bañ a fétal bañ di laaj nan la ko war a génnee loolu rek ci boppam dafa am solo ndax yéene mooy lépp asaka nag farata la mooy ñetteelu ponk yi ci lislaam sidna Abubakar radiyallahu anhu dafa xeexoon nag jullit ñi ci ñàkk génne asaka kon ni ñuy xeex ak yéefar ndax l'islam moom dafa wax ne benn ponk boo ci dem dem nga ponk ci l'islam yépp mu ne nag benn mbote béy muñ daan jox yeneen bi sallallahu alayhi wasallam buñ ma ko joxul danaa ci xeex ak ñoom loolu wane ne ne asaka kon mooy mottali l'islam mooy tax lu mat li nga xam ne ne bu ci julli ñëwul du mat bu ci koor ñëwul du mat bu ci asaka ñëwul it du mat aj gi sax am na ay charte ndax ci yoon julli moom ku julliwul dañ lay taxawal buñ la njëkkee laaj lu la tee julli bu fekkee ne da ngaa weddi warut julli buñ la reyee kenn du la sang kenn du la jullee kenn du la sang kenn du la suul ci bàmmeeli jullit ñi duñ jëgënal sa bàmmeel bu fekkee nag nee nga julli kaay lu war la yàlla ak san santaane waaye man nanga ma tax du julli lu mu doon rek ñu taxawal la bu waxtu wéyee boo xam ne bii boo xasoon kàbbar boo jullee ñaari rakka wala benn rakka bu ànd ñaari sujjóot ñi mat te dalul di kabar nanguwoo rek ñu dal leere diggante bi boo demee dellu siwaat ne naa julli nañ ma bàyyi kenn du la bàyyi kon asaka moom muy koor noonu muy laab noonu ku ko weddi ak ku ko weddi dañ lay bàyyi yàlla maanaam ku ko deful wala nangu te defuloo ko yoonu kenn néew ndax mën na am charte yoo xam ne mu nga ci biir te xamunu matal nga ko wala déet asaka nag dañuy dal ci sa kaw xeex ak yow buñ la ca dé ray dañu la ray waye dañ koy genn dañuy fab sa dañ lay japp door la bëgg tàll ñu yew la seet li nga am lepp ñu wañi ko li ci asaka war ñu genné ko asaka nak dafa war war na ci jur gi ñuy sam war na ci mbay mi ñuy bay war na ci liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi ñuy liggéey nak bu fekkenté né ci jaay ko jënd la ñaar lañu ki ñu wax mudir ak ki ñu wax muhtakir muhtakir moy ki nga xamne am njaay nit mu ngi yam ci waxtu dara bare ni ki gerte ñorna wala dugub wala ñepp wala dara ba bari mu jël def ci magasinam bayyi ba mu ñak ba nga xamne prix bi mën na yéeg lool jaay ko koku mom waxtu wu jaayé la ñu naan club ci kawam bu fekkente né nguru l'islam la gouvernement l'islam gouvernement islamique la dañuy fal dañuy nomé manam ay fonctionnaires yoo xam ne ñooy wër di dajale asaka yi ñooñ ñoom waxtu woo xam ne gannaaw lislaam weeru tamxarit la def muy njëlbeenu at bu tamxarit teroo ñu daal di jóg wër réew ki nga xam ne nag moom mooy mustakir boobu nga xam ne day def rek ci magasin moom bu mu seet at mi waxtu wu jaayee rek mu ñëw daal di wàññi natt asaka ci jël ki nga ne nag mooy mudir bi mooy ki nga xam ne waxtu wu gisee lu mu yaakaar ni bu ko jaayee am ci dara rek bu ko jëndee bu gisee ñëpp bu ko ko jaay mu jaay kooku moom dañuy faw waxtu tam xarit wi la ñuy seet mooy njal bennu at mi bu jotee bu ko génnee xam génne bu dee xaalis ñaari téeméer ñu ne juróomi dërëm maanaam al usri rombol usri <coughs> moom la ñuy génne ci alal gi mu am alal ji bu ko génnee ñi mu koy jox juróom ñett ñi alquran ñu tudd la إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فقراء موي جيتو فقير موي كيغا خامني امنا